da ngay gis bu ñu rendee xar wi ni mu war a wequ wequ tranquille lay wequ ba sedd am na ñoo xam ni ñii dañ naan dañoo tàng loxo ñii ne sedd loxo ndax loolu da ciy joué ci doomu aadama bi. waaw dafay am ci loolu dafay am ñoo xamante ni seen loxo dafa tàng am na ñoo xam ne ganaar bu ñu ko rayoon fii sax ganaar bi dina pët pëti lu mat 30 minutes yoo xamante ni ganaar gi dafay yëngut loolu moom ci loxo yi la rek mais ganaar euh, euh, rendi moom lu ci gën a mat mooy na mat mooy li ñuy tuddee dafa am lu ñuy tuddee euh, sëdditu law law da jay nii maanaam ñaari saddit yu nekk fii dafa xaw a tax nag léeg-léeg day daw di laaxatu moo tax dañuy bëgg booy reen ni nga commencé fii ba fii nga xam ne saddit yooyu dañuy dagg léegi nag saddit yooyu bu daggul dagg ba jeex tàkk rek loolu tim danay waral waa ji nekk foofu di fittandiku fittandiku yàgg moo tax ren ni moom dafay mat waaw mbokk yi ren dafay mat ñu dem nag dem directement tey ci xar bi sëñ Baara mu mel ni fi nga téye yaa ngi téye li nga xam ne moo di bopp xar bi bopp xar bi nga téye Euh, bopp xar mi njariñam ginnaaw ba nga xam ni euh, rend nañu xar mi euh, bopp xar bi ban njariñ la am ca bopp xaru tabaski. waaw bopp xar bi moom li ma ciy wax gis nga kii maanaam kiis la kiis pour xel xel. bopp xaru tabaski képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo dafa am nag gis nga tabaski mook alxuraan ñoo ànd. ndax tabaski alxuraan moo ko indi alxuraan moo ne wa fadday naaxu bi sibhin azimin maanaam ñun ñoo ko jotoo ak kuy mu mag. xam nga alxuraan lu mu tudd yàlla lu mu tuddee lu mag rek lu mag la léegi nag gis nga bopp bii nii pour wàllu kiis la képp koo xamante ni am na noo koy jëfandikoo boo dee mag doo mos a naax doo mos a naax te bu dee xale la boo ko ko defee xale bi xelam bi day neex même bu jàngul sax dafay intelligent dafay dafay dafay yeewu mën a lijjanti boppam mën a lijjanti lépp kooku ci bopp xar bi la kooku moom kiis képp koo xamante ni danga bëgg wàllu kiis ak wàllu loo xam ne wàllu xam la rek maanaam nit ki am xam-xam am ay leer kooku moom bopp bi la moo tax am na benn yenente bu ñuy wax yenente yàlla xudar moom ci bopp bii la daan defee kéemaan yu bari moom it mooy bopp xar waaw boo bëggee am njaboot boo xamante ni daal ku am bopp lay doon koo xamante ni boppam day leer lu nit fexe du mën a ñëw ci moom mu nekk ku neexal kooku mooy bopp bi waaw mbokk yi dégg ngeen njëriñu bopp euh, xaru tabaski yaakaar naa ne mbokk yi yéen tey yéen bàyyi ci jàmm ji info euh, yaakaar naa bàyyi leen xel bu baax a baax li leen sëriñ baara euh, señaan borom baraxut di wax kon mu nekk ay njëriñ yoo xam ne kenn waru ko di ko seen am na ñoo xam ne tayal da leen ci jàpp bañ naan mënu ma koo defar ak li mel dem teg ko fële waaw sëñ baara ma dem directement ci béjjén wi yaa ngi maa ngi gis nga téye béjjénu xar wi béjjén wi lan mooy njëriñam moom lii pour lii pour boole njaboot ak bayre moom béjjén béjjén léegi damay ñaan ñi nga xamante nii dañu yor xar bu ñu ko rayee ba pare béjjén yi buñ ko sànq gis nga buñ ko rayee ba pare nañu jël béjjén ñi baxal ndox ba mu bax ñu dugal ko ci buñ ko ci dugalee li nekk ci biir boo defee nii rek dafay dëñ nga dese nga dese béjjén kese bi nga garde ko kii lépp loo xam ne dañ ciy ay bayre yoo xamante ne dañ koy def ci place mm-hmm. képp koo xam ne da nekk ci bërëb bëgg mu dund mm-hmm. moo xam borom biti nga moo xam borom magasin nga moo xam borom parking oto ko koo munta doon fépp foo ko suul kooku moom pour wàllu bayre la beneen bi ci topp tim dañ ciy boole nit maanaam diggante jëkkër ak jabar ndax diggante yi naqari nañ trop fi mu nii waaw kenn ku nekk diggante yëpp naqari léegi nag boo ko ci xasee sëñ Baare ndakaaru moom boole ñaari soxna yomb fi waaw non ma ne pour boole ñaari soxna wala boole jëkkër ak jabar waaw ñaari couple nga boole leen wala nit ak ku liggéeyal nga boole leen pour ñu nekk ci jàmm kooku moom loolu moo ko tax a jóg moom bopp bii nii waaw moom moom moom béjjën bi yooyu ci looyu lañ koy liggéey daal waaw am na ay bayru yu am doole yoo xamante ni dañ ko ciy def yoo xamante ni da koy sox nga suul ko ci barab waaw euh, jërëjëf sëñ Bara Sagnane borom barxu dégg ngeen ci béjjën wi muy wàllu li nga xamante ni moo di wàllu boole da ko ci wax bay rek gis ngeen ak njariñ yoo xamante ni xëy na li mu bàyyi moo ëpp foofu euh, sëñ Bara entreprise bi nga xam ne day yëngatu tam wala tam amul bayra wala yaa ngi koy bëgg samp ki wàllu béggéen bi tam da ci mën na ci dox loolu moom la déggoo li ma la wax ma ne la loolu ci la gën a foore waaw bi junu xarum tabaski moom bëgguma am gis kenn ku koy sànni wala nga koy nga koy nga koy négliger ah, ndax li nekk ci biir mbóot yi nekk ci biir dafa bëri waaw macha allah jërëjëf sëñ Bara euh, ñu delluwaat ci li nga xamante ni njëriñu xarit tabaski ba léegi rek mbokk yi ak li nga xamante ni moo di buum bi buumu fa laay dem balaa may sori parce que buum bi damay bañ sax ñu fàtte ko ndax ñu bëri dañuy jël salaamaaleykum rek ñu ngi bëgg daanaka daal ren di xar wi ñu jël buum bi dagg dem sànni waaw léegi ndax dagg boo am na ñoo xam dañuy tere dagg bi am na ñoo xam dañu dañ ko war a tekki ma bëgg tamit nga wax ma ci dagg bi wala tekki bi bu fekkee dara amu ci problème ñu ñëw ci buum bi mais est-ce que xam nga ne buum bii nii buum bii bi njëriñ li ci nekk mooy buumu xar bii ngay gis nii gis nga buum bii tey damay ñaan ñi nga xamante ni dañuy rey seen tabaski ba pare buum bi jël ko rek nga takk ko ci lal bu xale yi fanaan uh-huh. bu dee xale dootul génnati guddi oh. bu dee xale boo xam ne da ragal ci moom muy njaaloo bu dee xale boo xamante ni dafa tixet wala xale boo xam ne dafa terrible mm. jël daggal ci buum bi tuuti rek nga nga takk ko nga takk ko ci lal bi muy fanaan beneen bi ci topp bépp jigéen boo xamante ni da nga mënula am jëkkër moo xam faru rab moo la ko teg jëlal buum bi nga takk ko ci lal bi ngay fanaan moom buum bi bu dee góor boo xamante ni itam soxna soo am mu dem loolu dafay am ndax am na ñoo xam ne dañuy am faru rab duñ mën a fanaan ak jigéen ci benn lal bu ko defee nga def ko jëlal buum bi rek nga takka foofu. mais sëñ Bara li ma jaaxal ñu bëri dañ koy euh, ki kàddu ñu baal ma ñàkkal fayda. mooy ñàkk xam. mooy ñàkk xam mooy ñàkk xam buum bi képp koo xamante ni da nga am boroom kër boo xamante ni itam duy toog wala soxna soo xamante ni duy toog fexeel ba lal bi ngay tëdd ak moom nga takk fi buum gi. macha allah waaw takk ci buum gi. Ah, Baara am na ñoo xam dañ naan la war ñu dagg buum bi directement ak paaka ndax yàkkam am na ñoo xam dañ dañ koy fekki ah, ndax loolu amu ci problème. waaw xam nga loolu liñ ci liñ ci liñ ci liñ ciy jublu rek ñi bañ ko dagg ak paaka maanaam nañ ko tekki. loolu liñ ciy jublu maanaam xar mi léppam dañ koy jox xorma. léppam dañ koy jox xar ma xar mi balaa ñi ko balaa nga xam nga xar mi balaa nga tëb balaa nga ko rey di nga julli ji ñaari rakk di nga julli ji ñaari rakk dool di ñëw rey xar mi xar mi boo ñëwee am na ñoo xam ne dañ koy jàppal waaw dañ koy jàppal beneen bi si topp mooy même xar mi ndox mi muy naan dama la ko wax ne la njëriñ daf ci nekk maanaam ndox mi nga xam ni ginnaaw bañ ko rendee ndox mi fa des waaw waaw ndox mi nga ko taajal noonu xar ndox mu mu sepp rek ba génnee ko man sàmmkat laa boroomi jur laa gis nga xar bu naanee ba pare nga jël ndesitu ndox boobu sax nga sangoo ko wala nga sangee ko sa njaboot cat du leen jàpp làmmeñ du leen jàpp waaw yàqkat du man ci ñoom dara kon loolu moo lay wax xamal ne bàyyi ma dafa am lu yàlla def ci moom mais lépp daf ko def rek pour doomu aadama yi alhamdulilah jërëjëf sëriñ Baara Segnane borom Barxut yaakaar naa ne dégg ngeen ginnaaw si fi nga xam ne foofu la ñu génne muy di euh, wàllu béggéen yi leeral na ko leeral bopp bi mu nekk loo xam ne am na solo ba ci buum bi nga xam ne moom la développé ak ñun mbokk yi mu nekk lépp la la lay wan ne lépp ay njariñ ndax buum bi li ma koy waxee da ngay dem ñu jaay la ko 100 euh, francs wala 200 francs euh, nga jàpp ni daal lii dañ ko war a dagg sànni waaye nga indi ci lu bees tàq waaw te ipitu booy ut xar da nga ut xar moo xamante ni bokk na ci mbóot yi mooy lii gis ngeen lii mooy lii waaw gis nga lii moom la pël yi di wax cëw di cëw di ay téere baat lay doon yoo xamante ni danga koy liggéey dafa am loo koy booleel bokk na ci ci wëy yoo xamante ni bu sayru taggoon na ko yonente bi faaxan na bi ina fii xalqin wa fii xulaqin walam yu daanuhu fii ilmin wala karamin moom la mag ñi daan jël am na lu ñu koy liggéeyal ñu boole kook moom nga takk ko sa morom boo nekkal yaa koy raw amul koy moom lañ tuddee cëw di mooy téere yu tuuti yu ndaw yooyu yu ndaw yooyu moo nekk nii gis nga ko am na xar yu ko am nag am yu ko amut waaw ah, waaw sëñ Bara lii moom baa nit ñi duñ ko war ci dara li ba sonn se duñ ko gis te yombul waaw mais ku ko ci yàlla changé rek nga am ko bii mooy lii ngay gis nii mooy cëw di waaw mooy cëw di mooy cëw di léegi nag bu fekkee ne da ko am booy ray xar mi mm-hmm. fii gis nga xar kenn du ko rende fii fii cëw di bi ak fii gis nga ko boo xoolee fii am ne doo ko lal doo ko laal foofu nga koy rey lu ama am njëriñ a ngi noonu nag <laughs> macha allah jërëjëf sëñ Baara muy lu am solo sañ Baara mu jëm ci làmmiñu xaru tabaski làmmiñ bi euh, ban njëriñ lañ ci mën a indi i làmmiñ bi bari na njëriñ boo am boo fekkee da nga nekk ci bërëb nit ñi xam nga nit damay wax ne nit ki kenn du bañ ku la tudd man nit bu ñëwee naan ma làmmiñ yi dafa bëri ci man ma ne ko li ma bëgg man ma defal loo xam ne làmmiñ yi duñu ñu am tësis ci yow mais nit ki kay ku kenn tudd mooy amoo dara ko amul dara moom kenn du la tudd mais fexeel ba tudd bi ñu lay tudd bu mu def dara ci yow léegi nag làmmiñ bi boo ko daggee maanaam bu ñu ko toggee ba pare boo daggee làmmiñ bi làmmiñ bi ci boppam da ngay ut ay puso nga def ci làmmiñ bi làmmiñ bi mun nga ko baxal am na benn saar booy bind nga baxal ko ci cin luñ toggee añ ba pare maanaam cin bu buñ ko toggee añ ba pare toggaguñ ci reer ci nga koy def nga dem sangoo wallaahi képp kuy tiim cin mënta wax dara mu def mu def effet ci yow te xam nga togg bu nekk si cin lay jaar ah, togg fu nekk si cin lay jaar lépp loo xam ne doomu aadama nga koy lekk muy jógee ci képp kuy dundee ci cin mënul wax dara mu ñëw ci yow moo tax kooku pour wàllu cet la làmmiñ bi pour wàllu cat la waaw làmmiñ pour wàllu cat même bëñ yi sax am na njëriñ bëñ yi dañ koy def pour xale yi nga xamante bu ñuy sax déegéet dafay métti bu ñuy sax bëñ dafay métti bu ñuy feeñal bu ñuy feeñal daal bu ñuy feeñal moo tax da nga daan gis mag ñi dañ ko daan liggéey ñu boole ko jix naa bikum jix naa bikumul lafifan mm-hmm. jix naa bikumul lafifan ci alquran la moom lañ ko daan boole di ko takkal xale bi léegi nag li tax ñu tàmm ci xam nga nit jullit wartu jëfandikoo loo xamante ni xamut niñ ko reyee moo tax waaye xarum tabaski moom kenn ku nekk xam nga ne du fétis maanaam ci jaamu yàlla lañ ko rey mm-hmm. moo tax xar moom léppam dafay dagan bu fekkoon ne loo xam ne da nga fekk mu dee wala buñ boo xam ne xamoo fan la jógee mm-hmm. l'islam du la permettre nga di ko jëfandikoo mais kii l'islam permettre na la nga jël ci bëñ yi boole ko jix naa bikumul la fii fan mm-hmm. nga boole ko pour xale boo xam ne buy sax bëñ dafay métti wala xale boo xamante ni da ngaa bëgg bu saxee bëñ bëñ yi rangé le rafet loolu yëpp ci côté ci mbiru njaboot la dégg <laughs> euh, mbokk yi dégg ngeen loolu euh, ñu daane la foofu ci bëñu xaru tabaski euh, dégg ngeen njariñ bi mu nekk loo xam ne tam na ma ko waxee gis nañu xale buy feeñal daanaka lu metti la moom mi koy dund ko xam. Euh, da ngay xam ne lii lu metti la euh, dégg ni ma ko ci waxee mu am saar woo xam tam baaxee na leen ko moom sëriñ Baara sëñ ñaan borom baraxut ba bay buy feeñal nga xam ni euh, du mën a yëg métti boobu lay sañ Baara fi ma jëm directement muy dugg directement ci xar mi balaa muy génnaat muy wàllu resu resu xar res bi moom am na ñoo xam ni xam naa ni am na njariñ waaye ku ci mel ni libaas mi gisul lu dul rek lakk ko ci saa si génnee ko rek lakk ko ci la gis mu jeex te du ci am njariñ ak moo <laughs> maa jaala laahu li rajulin min nii xam nga xar boo ko reyee benn res rek nga ciy fekk benn foie rek nga ciy fekk oh, yàlla def na defuma ci biir ñaari xol moo tax gis nga poobu pour lan la ni xamoo lu taxoon mag ñi bu ñu reyaan xar mi ba pare di ko lakk avant ñëpp di avant ñi lekkalee loolu pour la njaboot la moo tax bu ñu paree lakk ko kenn ku nekk nga ñam ci si xus léegi nag loolu pour juboo juboole njaboot la te damay wax ne doomu aadama da nga gis koo xamante ni mën naa joxe ay millions pour njabootam juboo am na ñoo xam ne pour seen famille nekk benn rek jaral na leen ñi joxe xaalis bu bari sekkere nag mu ngi ci res bi bu ñu ko rayee ba pare res bi nag li ma si jaaxal comme ñoom même boo ko rayee mun nga ko garder tant que njaboot gi balaa njaboot gi dem am na loo xamante ne tey boo ko liggéeyee nga def ko ci biir ñoom ñëp ñu bokk ko lekk wallaahi benn jëmm la ñuy nekk benn say la ñuy nekk kenn du mën a jaar seen diggante sëñ ñun Saalum lañ dëkk ay doomu saalum lañ mais da nga daan gis góor goo xamante ni day yor lu ma ñetti jabar wala ñeenti jabar jabar ju nekk xam juróom-ñetti doom boole kook yenn bàjjen yeeg yenn yëpp te kër gi ñëpp ay nekk benn mbóoru yooyu yëpp fii la nekk waaw boo ko defee ci njaboot ñoom ñëpp danañ nekk benn mbokk yi sëriñ Bara Sagnane borom barxut bokk ci spécial tabaski ci euh, njariñu xaru tabaski di ko fàtt rek adresse bi mu ngi fii ci diwaanu Sacré Cœur 3 boo ñëwee ba ci VDN bi ginnaaw borom bee fi nga xam ne moo di cimetière Saint-Lazare daanaka rek euh, sorantiwul ak diwaanam euh, mbokk yi numéro téléphone yi saa su ne di affiché ci barre écran bi noonu ngeen koy seen 77 617 18 33 wala beneen numéro bi 77 346 90 00 sëriñ Bara Sagnane borom baraxut sëriñ Bara fi ma jëm directement maa ngi dellu si Euh, gis nañu xaru tabaski kili boppam bi nga xamante ni ñeenti tànk la te ñeenti tànk yi euh, bu ci nekk xam naa ni wéy fa laa bëgg a dem directement wéewu xaru tabaski moom euh, xam nga boo ko sol day mel ni genre marakis waaw moom lan mooy njëriñam. Eh, wéy moom it bëri na trop njëriñ ndax ñaari wéy yi fa ñu àndee dafa yàgg moom laa la doon wax gis nga ñaari béy jën yi fa ñu àndee dafa yàgg ñaari wéy itam fa ñu àndee dafa yàgg moo tax tout le temps mag ñi dañ koy def. pour boole ay nit gis nga ñaari we yi mm-hmm. tey bu fekkente ne da nga am jigéen boo xamante ni ak boroom këram juboowuñ dañuy coow mm-hmm. oh, walla sax kenn ku nekk ni nga war a jëriñee ca moroom des na mm-hmm. mag ñi dañ ko daan jël mais dañ daan weslante nag ñaari saar yi boo bindee li ilaafi qurayshin li ilaafim rihlata sitaa i wa sayfi benn saat moo fa nekk lixlaas benn saat moo fa nekk lixlaas benn saat moo fa nekk li ilaafi qurayshin benn saat moo fa nekk boo jëlee benn saatu euh, boo bindee ba ci xul euh, euh, huwallaahu ahadun allahu samat nga ubbi saat bi nga yem foofu nga jël lixlaas nga bind ko nga bind ci biir nga ubbi ko nga jël lixlaas mottali ko ci biir nga bind ko nga def ko ci wey yii weyu tànk yi ci suuf nga dugal ko ci biir wey waaw nga dugal ko ci biir wey yi nga dugal nga suul ko ci xetax xetax boo ko xamul mooy bu ñuy bojji suna bu ñu ko bojjee ba mu ba suna bi génn mhm. leneen lay des loolu mooy xetax boo ko amul nga sulaale kook dugub sëy boobu kenn du ko mën a yàq diggante boobu kenn dootu ko mën a yàqati. mooy dëgëral sëy. waaw mooy dëgëral sëy waaw. waaw mooy dëgëral sëy lu lu yéeme la nag lu yéeme yéeme ndax ñaari saar yooyu mhm. ñoom it ay seex lañ ni weyi nekkee ay seex mhm. ndax boo seetloo ñaari saar yooyu benn bu nekk benn saat moo ci nekk mhm. waaw ñu jàng alxuraan bu ñu ko xoolee dinañ gis lii ma leen di wax waaw sëñ Baara ma dem directement ci res bi euh, res bi wax nañ ko ginnaaw si muy graisse bi graisse bi laa jëm ci graisse bi nga xam ne moom damay duggaat ci biir graisse bi ñu ci bari itam wax nañ ne am na njariñ damay wax ne gis nga ci jigéen ñi sax ñi nga xam ne dañu bëgg karaw karaw karaw mooy comme am karaw nii jëlal ci graisse bi rek nga boole ko saytuun am na benn huile bu ñuy wax huile saytuun nga boole ko rek tuuti nga ciy jël rek nga di ko booleek moom nga di ko diwoo nga xool kooku sax moom amul lu yàgg moo gën ay cheveux yi ñuy def yëpp waaw beneen bi ci topp nag am na ci mbóot boo xamante ni pour góor ñi nga xamante ni seen awra dafay rasu kooku tim am na luñ ci luñ ciy liggéey mais nag secret boobu moom dañ koy bañ a wax publiquement ndax dafa loo xamante a waaw kay mais daal kenn ku nekk bu fekkee ne da am sàkkara boo xamante dafa gàtt wala boo xam ne dafa des am doole wala mu dese a yaatu kooku am na noo koy liggéey graisse bi am na loo koy boole graisse bi mu di ko ko mu di ko ko waaw kooku moom loolu moom am na ci solo trop am na tim yoo xamante ni boo ko jëlee tim nga boole ko ak lem nga bind juróom-ñaari maanaam ñetti saar yi nga xam ne ni amul keef am na ci alxuraan ñetti saar yoo xam ne moom amul keef nga di ko booleeg moom kooku lépp loo xamante ni wàllu sayaatin la wala wàllu rab kooku yàlla dina la ci dimbale waaw bu baax a baax waaw kaaraange la jërëjëf Baara mu mel ni dañuy ñëw ci euh, suufu xar wi sax laay dellu waaw suufu xar wi fii waaw lii moo gën a am njëriñ waaw waaw waaw ah lii mooy libaas dina ko wane punc mooy fi muy tuuree ndox mooy fi awra bi génnee fi muy lii xam nga pour lan la pour góor bi nga xamante ni mënul am soxna soxna ja daf koo jafe loolu mooy puncung da ngay dagg puncung bi noonu rek foo dem ñu yéene la soxna waaw boo dee ku bëgg am na ñoo xam dañ leen a dàq rek pourtant euh, mais mais loolu jaaxal na ma yenn góor dem xam nga xar moom leneen jafe na ko ba mu des jigéen moom waaw ku yem xar moom karaa nga yeew ko ci kër mais leneen jafe na ko ba mu des loolu moo tax puncung mi loolu la ci mag ñu doon def da ko daan jël dagg puncung mi bu fekkee ne danga bëgg maanaam soxna yomb la wala jigéen koo xam ne dafa bëgg borom kër yomb ko waaw kooku puncung mi lay puncung mi ngay jël waaw jërëjëf sëñ Bara Signane ñu dem ci der wi nag xam naa foofu la ñu bëgg a fas yéene tëjee jotaay bi euh, deru xaru tabaski mbokk yi ñu bari tam gis nañu salaamaaleykum dañuy jël yëpp dajaloo def ci biir kàmb rek suul buñ ko def buñ ko def gis nga der bii nii surtout na xar mu weex tàll nii nag yombul nag mu weex tàll moom boo ko amee moom der bi moom lu ne nga ci mën a def gis nga kii der bi tey buñ ko dindee ba mu set nga bind surutu nañ mi wa nañ mi mooy saaru biddiw bi kooku moom kër goo ko def dinañ ko ràññi ci gox boobu doomi doomi kër googu danañ leen ràññ ci gox boobu maanaam danga koy bind boo ko mënee bind ci der bi baax na boo ko mënul bind nga bind ko ci xaal bi laxas ko ci laxasee ko der bi suul ko ci kër ga wala nga suul ko ci bërëb fu mu mënta nekk comme étoile lay doon mooy deru xar bi te deru xar bii nii bu weex man bëri na gàllaaj yu may bind di ko yónni bitim réew ak di ko yónni fu nekk deru xar bu weex lañ koy awee waaw deru xar bu weex lañ koy ëwee der bi moom mbuut bu nekk mu ngi ci der bi du du lal julli rek lal julli moom kooku soxla boo ci ñaan yàlla daf koy nangu waaw nga lal ko rek teg ko nga defar ko rek teg ko noonu saa boo amee soxla toog ci julli ñaan yàlla ci xaru tabaski yàlla daf koy nangu maa daal lépp loo xamante ni bëgg nga ko moo xam ci der bi la tey boo ko feesee ba mu der ba mu dëñ hmm. nga jël nga nga bind ko ba mu mat bu la neex itam nga ut 66 doomi guro nga ut perkaal nga leem ko ci nga suul ko ci kër kaaraange la waaw kaaraange la lépp loo fa sumb dina yegg comme xarum tabaski ni nga xamee ni gisoo benn ayib ci moom noonu lay mel lépp loo fa sumb dina yegg te dina gaaw te yàlla dina ko yombal. macha allah oh. euh, ngeen jëf mbokk internet jàmm ji info. ñu di ko santaat beneen yoon ci disponibilité am ma leen ko waxee rek euh, jige woon ci tukki bu sori waaye itam teewul ba léegi bu askan wi soxlaa mbokk internet yi da koy gis saa su ne muy yëkkati ay kàddu kàddoom yëkkati ko jëmale ko ci askan wi sëriñ Bara Segnane borom Barxut ñu di ko santaat beneen yoon sëriñ Bara Segnane borom Barxut euh, looy waa jàmm ji info dafa mel ni euh, ni ñu koy waxee rek kër gi sa kër la waaye itam di ki wax rek saa su ne askan wi dañ léegi yittewoo di la namm lool looy tàggatoo ginnaaw si foofu waaw euh, ñi ngi leen di sant bu baax rek euh, di leen gërëm di leen xamal ne euh, julli lépp lu baax fu mu ko fekk rek moom la ko yàlla jox moo ko moom te yàlla dafa am ay mbóot yu mu def ci mala yi def ko ci xob yi def ko ci lépp li ci gën a am solo rek mooy fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun nit ki moom lépp loo xamul rek laajteel tey jii li ñu détaillé nii ci xar mi lu tuuti la ci mais leneen lu ci waay am tim bu jëlee numéro yi bu ñu wootee ñun liñ ko ci mën a baaxee dinañ ko ci baaxee di ñaan ñun ñëpp yàlla nañ julli ci jàmm kenn ku nekk foo mën a nekk ñun ñu ngi lay baal àq di ñaan yàlla nga baal ñu àq di la ñaanal yàlla ci jàmm ji yàlla defal la ci xéewal defal la ci lu kowee sa njort ndax tim yow it wóllëre bi yàgg na trop depuis nga nekk ci rajo mais lii yëpp ñu ngi la ko doon wax ne leen yëf yi dina ñëw incha allah kon nag ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax ak yow sa caméraman bi yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla defal leen sutura di wax ne lépp luñ ci lépp lu ci jub